mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fii ci Fila Esplanade Stade de l'Amitié fii ci Grand Yoff grand bi cher naa la. delloo ziar grand naka yi tey. sant yàlla bergerie mooy ban bergerie. mooy bergerie Khalifa Ababacar Sy bu Petit Mbao. Petit Mbao arrêtement ngoy. kan mooy initiateur bi. man ma man la Pape Madiop Sembène. Pape Madiop Sembène. waaw euh, Pape Madiop Sembène fa nga dëkk. maa ngi dëkk Petit Mbao. Petit Mbao deuxième porte arrêtement ngoy. Pape Madiop kañ nga dugg ci élevage ak kañ la bergerie Serigne Babacar Sy taxaw.

waaw ah, recteur dañu ko recruter. ok bi muy am sept mois lañ ko recruter. ok Aboukan moo ñu ko joxoon. waaw ah, mu nekk mag maal bu mën production. jur fii doom yu doom yu extraordinaire macha allah. moom ba muy am 7 mois léegi instant mi ci ñaata mois. actuellement am na 3 ans ak 3 mois. ah kon ça veut dire que liggéey ngeen ci. voilà liggéey nañ ci bu baax. loo tëngee yëpp ak femelle yi yi nekk si box bi moo leen jur. ok voilà. directeur 3 euh, ans mës na dugg concours mës na dem foire. directeur waaw mës na dem foire dem na ay foire dem na foire tëngëj bi mooy deuxième foire bi muy génn. foire tëngëj bi indi woon nañ pour ñu évaluer ko mais malheureusement dafa fokk veille foire bi. ok waaw 19 mois la amoon. ok moo tax évaluer wuñ ko foire bi aussi dafa jóge ci feebar moo tax fu mu toll état bu nekk nii permettre ñu dugal ko concours quoi moo tax. ñu jëm ci euh, ñu ci euh, kii nga dugal doomu Maxusey bi. moom mooy kan. kooku doomu Maxusey la ak Miss Saloum. waaw yaay mooy saalum Saloum doomu Saloum Saloum. ok Maxusey moom yaakaar naa élèves yoo xam nañ ko. mooy doomu magistrat ak première dame. voilà actuellement mu ci 18 mois. 18 mois mu commencé liggéey commencé wàccee produit extraordinaire aussi. ñaata temps def ci bergerie bi. bon bi mu amee trois mois ba léegi mu ngi kër ga. waaw parce que bi ñu koy recruter mu ngi am mois jours. actuellement am na dix huit mois léegi moom dix neuf mois. ok est-ce que wàcce na fa. waaw commencé na wàcce moo jur ñaari ñaari seex yi. Ah, seex yi ñu ëndaale waaw. waaw parce que xar yi moom ah kon macha allah. ya eh, ci yenn femelle ngeen ko teg. bon si femelle bi ko teg femelle bi boo xoolee. moom doomu Nestor la ak Jojo. ok Jojo bu Arena laa dugg. Mhm. Nestor moom doomu magistrat ak Linguère la. noo tudd nan. waaw ah, di tudd Signal. ok muy une grande femelle. ok macha allah. waaw macha allah parce que croisement bi ngeen def fii dafa rafet. macha allah parce que boo gisee ñaari doom yi rek. Ah. xam ni croisement am solo ngeen def. parce que doomu maxu sëy bi nga teg ko ci femelle bi. man ba ma gisee seex yi avant avant ngay wax. Ah. dama leen dama dama sànni que ne ay ay ay ay ay ay kii lañ quoi macha allah léegi lan moo la inspiré loolu nga def loolu lan lan nga dem jëli doomu maxu sëy bi loo gis si moom. voilà c' est que doomu maxu sëy bi dama gis si moom critères yoo si mhm. maam ji laa ko gisoon. Mhm. muy première dame. waaw muy SS bi muy def ak gabarit bi ok ba pare da si yokk boote. macha allah moo tax.

3 ans, le 6, le 3 ans. Ok. Inch'Allah. Inch'Allah. Mu femelle extraordinaire vraiment, mais mensuration extraordinaire. Voilà. Et euh, fila bi noo gisee. Hmm. Non fila bi Mach'Allah, quoi. Organisation tout est impeccable. Ok. box yi yaatu na aéré na. bon un engagement bi nous amoon na ñun quoi. franchement hmm. non non Mach'Allah. Non, kon dernier mot ak tegtal bi ak numéro téléphone bi. bergerie bi euh, ku fa bëgg ñëw Le premier maa ngay ñëw. Mhm. deuxième porte allée Mangoy. Mhm. numéro de téléphone bi 77. 426 65 62 voilà. kon euh, xam naa ni moom Samaga TV il faut mu ñëw parce que lii. mais est que kii du ma ko dugg sama espoir. <laughs> xam nga sama espoir da nga ko seetaan. waaw waaw dañ koy seetaan. waaw dañ koy suivre si YouTube bi. man jeune maa bi ma a moom moo ngi tudd Dunia. Dunia Dunia aaxir lañ tudd. mais Dunia est que du ma dugal. non non incha benn problème. waaw waaw boole. non Dunia dama koy doon incha allah incha allah bu baax yéen aussi.